<laughs> boo ko defee suñ bàmb nga jox ko micro bi rek jëru muy déplacé wu ginnaaw bi xam naa bu paree rek euh, ñu jox oustaz euh, sëñ Ahmad Mbacke bu ko defee ñu doog a dugg ci ab talaba al izza asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu siyaar yi ñëpp sëñ Fallou maa ngi lay nuyu sëñ Fallou Lo mi lay ko nuyu nag suñu sang boobu oustaz ñu ngi leen di tatagal di leen euh, sant bu baax a baax ci liggéey bi xam naa ñi ma jiitu sëñ Saam ni mu ko leeral noonu doy na sëkk yaakaar naa daa kon mooy riwaayal ifriqiya li taarixil ifriqi yi daa mel ne sëñ Saam loolu nga royoo waaw di yàlla moom daal téere moom xool naa ko li ma ci li ma ci jëkk seetlu mooy tur wi tur wi tur wi daa tracé fatxul kabiril mutaal xam nga dafa tracé maanaam làkk wi daa neex lakk lakk mag la loolu loolu moom loolu nga xam ne tur bi rek dalay daal di joxañ madmoon bi lu am solo la lu am solo la loolu moom yaakaar naa moom eh, kii na loolu daal waaw yaakaar naa eh, eh, yaakaar naa moom gars yi wax nañ wax nañ am solo gi mu am solo xanaa man daa bëggoon ay mulaasa tuuti rek xool tuuti naq duuma nag sëñ la may rek maa ngi maa ngi koy tàmbalee ci ak diyaana séréer yi séréer seen diyaana bi diyaana tawxiid yi la de diyaana séréer yi ruug sen ruug sen wow wowu tur ndax ma sax gis naa ko ci arab waaye alxafiyul mutaŋaal ruug sen ruug mooy alxafiyu sen mooy almutaŋaal bokkut bokkut nag ak ak seen seen aw la seen laa wax seen kon ñoom kon ñoom seen diyaana bi bi kon gis naa ci bi ngay wax pangul pangul moo ne xisa la bu am njëriñ de nekkat pangul moom daa am ne séeréer si dañ ne si seen maam dafa amoon ay ak ay juróom yu réer mu di ko seet wóor ko ci àll bi ba sonn daal di tëdd ci ron ak garab nelaw yeewu fekk ko fa nag wa fekk fekk nag wi tim ko léegi nag mu ne day sant yàlla léegi nag lu lu lu sant léegi mu ne daal garab gii daal xam naa ne moo fi indi nag wi waaye di jël am soowal ma ko meem di ko fa sotti di ko sant pangul moom kon pangul ko kon moom dara la kan dara la de pangul dara la kon dara la de maanaam moom ñoom xam nañ ne yàlla am na defal na ko dara mu bëgg ko sant foofu fu kon am na solo kon lool eh, ma dikk ci baatu ceddo ceddo mu xanaa mooy aljaahiliya aljaahiliya fi lislaam ne arab yi wax na asru jaahiliya mooy ceddo ceddo ci noonu waaw ceddo it dana firi ne gaa yi nga xam ne ay ay wuur lañu woon ay ay ay wuur wala boog ay gërmi di noos daal di noos ñooñu lañuy tuddee ceddo yi am na baat boo xam ne bu ma yitteel al arwaaxiya al arwaaxiya xam nga euh, docteur Bamba yéen ne ngeen mooy animisme waaw euh, ne ne ngeen ruu ruu yéen ngeen noonu amuñu ko noonu ruu ah kay sëñ bi ruu am nañ ko de damaa nekkeer ci sama néeg gars nan naan asamaaw gars yi naan asamaaw eh, eh, arab la mané ah mané ci si sama di dalu rek ubi ubi buntu bi ba albab yendeer gars nono, albaab mu warib ma xol new yender wolof mom legal ban intérêt la am ci yender bari ko joxu tur te asamaaw mi koy joxam ndox joxu tur mu ta nek legi legi wolof ni nga xam ne asamaaw ni mu amee njariñ ci ci moom jant beeg lépp ba noppi amul ko tur yendeer bu ñàkk solo mii mu mu daa koy tudd ci ko ma ne ah loolu mu ta nekkoon xam nga xam nga léeg-léeg nga gis ñaari baat niroo te bokkuñu léegi léegi kon kon léegi al arwaaxiya animisme jox la maaw anthropologia ci xar bu ñoom dañoo gis ne madmoon bi mooy wax wahdatul wujud léegi nag ñoom dañ ne kat léegi africains yi ñoom ëgguñu ci boobu niveau ci xalaat kon léegi nañu gudd beneen tur animisme naar yi ñoom it ginnaaw ñoom dañuy tarjama xarfi rek daa dine al arwaxiya ndax ndax ndax mooy talabusul madda bi ruux loolu du nga di ma ne waaw léegi nag nag gaa yi ñoom eh, toit bi ñoom gis nañ nekkat wax dëgg bu jur sax la waaye nag daa fort te dafa tedd kon léegi africains yi ñoom amuñu boobu xalaat tax boo demee ci Hegel alfay suuf almaani yi wax wahdatul wujud maanaam ci arqa marahil fikri la ndax ndax mooy synthèse al jadaliya كون افريكان نيوم خم نغا دينغا دينغا دينغا هيغل تي تاريخو محاضرات في في في تاريخ الفلسفه نينا خلود الروح كيما لا بو خم ني حضاري بو خم ني نينا ما غا فيني ايجيبت كون نون كون نون خم امني لوكون امني لوكون امني لوكون واو لغي gis na fi ab bat bu bu bikkiri wax dëggoor xuma dëggoor dagaa giir waaw mané ne waaw ndax loolu baatu wolof séeréer bi dan digor ndax jugut foofu moom digóor loolu ma waaw gisu ko ba xam seet leen ko ko ba xam ko waaw bi ci top al xam naa noonu bu de ci usul din dañ koy uh, daw noonu danaan annasaraniya bu ne almasihiya mooy ñi nekk ci diine si sayyiduna almasih alayhi salaam bu ne annasara yi nag mooy ñu ko woote woo alsina xaalu inna nasara moo tax noonu foofu benn benn uh, marocain bu jóge woon Maroc di def doctorat ñëw sama kër di wax naan masihiya ma ne ko déet nasaraniya la ah, ba ma leeral ma ah, waaw lu tax suñu professeur di ko wax kooku baaxul waaw alxawaal baat boobu it kii na ma alxawaal teet sëñ bi boobu boobu kii la maanaam ci waxeenu mbedd mi la xawaal oh mooy sun mooy sunu mu arriqiin yi historien bi ay waaj yi ñu ne ko xawaal ah ay waaj yi ka metti ci man xawaal mi ngi ci lan anamu paas 126 126 la maanaam nun li ñu tuddee al muarrix al malxam yi kooku mooy alxawaal ci mbedd mi xawaal foofu foofu moom su ngeen ko dee kiyaat moom dana dana jël kiyaat waaw mi ngi ci ci xamis bi la ne xamis bi 126 xamis xamis bi la ne 126 waaw waaw ci xamis bi 126 xam nga dafa kii yii loolu daa métti moom xawaal mana xawaal de boo ko waxoon ab giwél nag xanaa nag dana mer moom xawaal waxuma ko dara de ko kooku noonu nun xam nañ ne xawaal moy mu arrix malhami yi waaw waaw waaye du nekk loolu waaw léegi gis naa ci sa tanaaxut bi bi nga wax yaakaar naa ma ma nga ci xamis bi sa tanaaxut bi ngay wax naan am na ci matandu bee dugal dugal kii ci xaw ma lan naxawu waaw kooku moom sax kii loolu eh, xam naa bu fi sëñ Mbàkke Abdourahmane nekkoon daa wax naan maam Maram mu moo mag Matanumbe gis naa ci seen téere bi loo am solo lu am solo lu solo ndekete ndekete moom sëñ Moussa Ka ga ci moom ah, te sëñ Moussa Ka waxut loolu sëñ Moussa Ka moom danekat Matar euh, maam maaram man naa am taqriban daal kooku moom ah kon nag moom euh, sëñ Mbàkke bu ci bëggee dane wuli da taqriban bi aami ay ah, bi loolu sëñ bi lan la euh, taqriban di moom loolu du dara moom du dara di maanaam loolu mënu sukkandiku ne diw ma mag diw déedéet kooku moom kooku moom kii du moom xam naa waaye sëñ Mbàkke ni ko fi xam naa waaw li fi amat li fi amat solo maam maram maam maram mi ngi jàngee naxwu ci matallumbi boobaa da sax irtaxala taayiba luxaat wal fiqi min samba ca ilax wa naxwu min si daal muxtaar yi léegi kon waaw yéen naxwu léegi kon mu samba jaam xanaa kon dafa amutoon bëgg naa ngeen xool ba xam yéen ndax léegi maam maram jàng na ca Masamba Thiam ndax am fa kon xanaa ba tax du muy jóge gànnaar andi ko ko am kon foofu léegi maa maa ngi def feedback ca léegi kon kenn moo dikk a dugal naxawu ci réew mi waaw am na am na uh, lu kii mooy soxna Sooda Almaami yi dañ koo dañ koo jàpp mu dikk andaale doom maaluma bii lu mu jëriñ maaluma bi lan lamay may man soxna soore mi kat borom doomi almaami mi abdul khadir kan japp nañ ko mu dom ñu tuddi ko mohammed santale ko kan sant ndey ji boobu lu ma xam nga xam nga sóoru bo basatin yeen ci yeen ko jele waye waye ndax am nañ ndax am nañ njëriñ gune xam ko ndax fi dool kat jombul man nañu daal di xam legi koko ay dom ay sedum fofu fofu ndox bu am solo la waaye eh, ndax leg yow li ngay jël da nga koy tawsiif lutax nga jël nangam xam nga do jël rek tek waaw lolu lolu mom yit amna solo lool sahibu suhri basatin beggon nañu tarjamal ko nak ci hamisi wala ci di ndax ndax mom nak eh, ala ak ni ah de ala ala ala bu xoromu la mom, mom ah, deug yalla pragmati pragmatique la fu intérêt jëm rek mu jëm fa mel na ne nag tubaab bi ñoo ko jaloon ci Cheikh Omar Foutiyu ngir mu nger mu bëgg a dindi ci xudsiyatul jihaad ci ci ci ci xel nit ñi kooku nag kon moom mbat naa daal diraasa naqdiya waaw kooku mbat na ko ndax ci gone yi buñ gisee ngeen di jël ci ci moom rek lu baree bari mbaa duñ ko daal for sax taqdis ndekete moom kat benn waay la de waaw waaw li may xam naa maa ngi guddal ay ay ay ay laaj tura wala maa ngi ko tuddee mafahim yajibu an tusaha misaal a taxqiibul xadaari europe yi bi wëree su ko isxaar ci sunu taarix noonu kooku kooku nag moom juxutee doon juxudu juxudu ma ne fi tollu alxurunul wusta déet sëñ bi euh, maanaa léegi moyen wala dark age maanaa al unsurul muslima ci ci foofu fan la ci ci Europe la xanul xaamis xaamis xasar booba noonu Gana mi ngi ah ak Mali seen di noonu ñu ngi ci alxasuru dahabiya foofu foofu la am solo la maanaam léegi tubaab bi mooy ñuy waxal boppam soo demee ca Edward Said ca Istisraq tubaab bi mooy wax ne nii laa gisee àdduna bi nu ñu ah kon nag bi ñu ko jot toppee kon dara soof kon de alxasurul wusta al européen man lay wax man العصور الوسطى الاوروبيه من الله يوح امنا بين عصر الاستكسافات الكبرى موي 15 17 او ماني كان لا اكزامون تو بي دري يو دي سيغن لوين با مالا خامي nga am ba wala xamé la la gënté ah way yow ñun am ñu dégg dé fofu fofu lu am solo la ndax gone yi gone yi dañ leen koy jàngal al istixfaar nangam xale bi fàtte ne dañ ne ko kat bi la tubaab bi xamagul amoo foofu lu am solo la ndax léegi yaa ngi xalqu al waxyul jame yi xalq boo xam ni baxut li li li Spengler di wax attaché kadib da ngay créer benn xale boo xam ne mu saqaf boo xam ne ndekete moom xamut for kon lu lu lu am solo la. Eh, alxarbal alxarbul alamiya lu tax tubaab bi daan alamiya noonu si noonu bëgguñu noonu xanaa wala Sénégal bu bokk na ca ah eh, noonu déedéet bokkuñu noonu nuñ dañoo forcé noonu noonu bokkuñu noonu noonu dañoo yilifoon ah noonu bokkuñu de waaw xam nga la la lan la moo tax tubaab bi bëgg tuddee ko al alxarbul alamiya xam nga con concept ci noonu falsafa moom dafa fort ñu xam ne kat su ëllëgee buñ dee buñ dee atte eh, taarix. ñu ne ñu ñëpp ko bokkoon déedéet mu dafa naan xarbul umam al européen al ula wa thaniya xarbul umam al européen al umam al européen ñoo xeex ñoo xeex nu waaw ñoo xeex nu al al ci bu demee ci xaqalul al al inter ci ci polodia al bidaiya primatif fi ñu toll primatif ñun dañ naan ñi nga xam ne duñ bind tubaab yi dañ naan africain yi yéen moom yéen a ngi bokk ca حس جاسر الحجري دال الأول ولا نعم يندال ين بنولين نعم باو ماني جسنا شيء بين توا بوجي بوجي بين لوم سرور دال دينه توا بينيوم نيني قراءة الآخر أتاخد نقول قراءة سين بوب البدائية دير سين دير بدائية لان دير دير دير بمي موجي موي فلسفة في دولون قناة يوجد فلسفة falsafa luy falsafa philosophos o oh, oh, xale bi xamul de luy falsafa ah déet falsafa munta munta jóge Yunaan Égypte ko jiitu fopp gën koo civilisé jëkk koo civilisé falsafa do lu may ci wolof nan euh, so Songela professeur Songela Songeew mooy kii siiw coo rek noonu dañoo dajee ci kër sëñ Abdou du Samad ak Magal ma di ko laaj falsafa mooy lan ndax ndax wala am na falsafa mu ne ma déet amu ko falsafa philosophos ma ne ko luy philosophos lu lu luy loolu moom waaw mu naa ma Pythagore ma ne ko Pythagore a ngi eh, Hegel nee na Pythagore mi ngi jàngee ak Aristote ak Thalès ña nga Égypte ba noppi léegi Pythagore war ko war ko mu ne ma déet mu ne ma léegi wolof wolof bu mu ko ma ne ko ma ne ko ma ne ko mooy xereñ téef sëñ bi xool yow professeur bu toll noonu mënut ta lim xam mënu koo sotti ci olakam kon diggut de kon diggut ndax eh, benn séeréer dama ko laaj ni ko ci ban làkk ngay génte ban làkk mu ne ma xanaa séeréer daab ñoom ku ñu wax daab ñoom lu am solo foofu ci ci elmu nafs làkk wi ngay génte ci ngay xalaate loolu moo ci làkk xam nga lu ko académie yee lakk académique bi xaar da koy bind nii rek yow ak di ko wax bu ko tëgal bi yee xaate léegi nag kon falsafa du du dara euh, mode mode maanaam du lu may mode mode de pensée képp mode de pensée du du dara sëñ bi waaye dañ ko réel ndàngam Hegel xoolal Descartes gis naa professeur yoo xam ne daa gëm Descartes lool ma ne ko Descartes waxul si seraw sa pense donc su suivi du dara lu lu wax sëñ bi waxul dara di moom amul njëriñ sa pense donc suit kese mu ma ne ko ma ne ko cogito cogito africain bi gën a fort bala nga ne am ne fi lu am solo de bala nga ne am ne fi africain bi dane pour que justifier ma ne am nga da da da ngay liggéey dara da ngay da ngay mën a def dara ma ne kon léegi cogito africain bi moo gën a foor cogito de dagar lo loolu xam naa ko kooku maa maa ngi sant nag bu baax a baax maa ngi sant bu baax a baax baax xam naa ne docteur Bamba kii ma de lu damay gën a feeñal téere bi ndax ndax ndax misaal téere bi su amatoon solo kon du kon du ma jógee patar nii ñëw dégg nga loolu patar laa ji jógee sànq de am am ngum am solo moo tax ma ñëw waaw xam nga yéen a gis doctorat bu ñu ko dee xas gis nga waajo dañ koy wax a wax ba ba mel ni defu dara fi que ne ah def gi def def dara moo tax gars toog ko kon ñu sant jërë nga jëf sant aw do macha allah jërëjëf euh, oustaz euh, oustaz Moustapha Diop Koki ci taaliqaat yu am solo yi ak taaqibaat yi wax dëgg yàlla am na solo lool te li ci ëpp euh, Bama Dramé maanaam noté na ko fa tabarakallahu kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadu